di leen jaar di baalu àq ñëpp di baal ñëpp di ñaan yàlla sunu borom mu boole ñu jéggal te nangul ñu sunu weeru koor fukki fan yu mujj yi nañ ci saxal di jéggalu ndax fukki fanu njéggal la yàlla mi moom njéggal gu mat gi yàlla ñu yàlla boole jéggal ba li ñuy wut euh, di ko mébét pour senegal yàlla yombalal ñu ko euh, dëgg la Moustapha mi ngi may wax léegi ne ma ñaan bii de moom nga doon ñaan di wax ni bu fekkee ni dañ ko nar a gañe te du ñu jariñ yàlla bu ñu gañe mi ngi may tooñ naan ma bi nga wax maa ngi naan waa ji waa ji dafa nar a këpp suñu ñaan moo ne ko bul jàpp moo ne ko bul jàpp suñu biir dafa am ay njuuj njaaj kat parce que suñu biir amul kenn kuy njuuj njaaj li ñuy ñaan ñun bu ñu ko waxee ñëpp lañ ko waxal te ndax pas-pas ñun ñëpp ñoo ko bokk moo tax yàlla may ñu ndam yi euh, jotaay bi rafet na macha allah ñu ciy sant yàlla di gërëm encore bu baax a baax a baax le coordonnateur de la coalition Moustapha Mbaye yu am solo yi muy dox moom mooy le mur des lamentations suba ngoon lu ne lañ koy yàq mu ne nemm rek di muñ di muñ yàlla li defal jàmm ak salaam yàlla na sax ku mat li mu doon la ku mat liñ ko tañ liñ ko sant la kon nañ koy ñaanal mu gën a dëgër ndax moom dëgëraayam mooy sunu dëgërluwaay yàlla na gën a dëgër tàppet la nag ndax benn jabar la am loolu donc moom ci naqari beneen bi mooy fii ñu toll nii tey mooy ñeenteelu jour bi nga xamante ni bii ñu ngi ci affaire inscription yi 2024 ñun ñoo jox rendez-vous sénégalais 2024 ñun ñoo jox rendez-vous sénégalais 2024 bii. c'est une nouvelle république la ñu war a indi dans tous les sens du mot république bu yees la war a indi ci Sénégal république boobu li ko fiy indi mooy ñu dox ñun ñëpp dem inscrire képp ku ñu war a inscrire may wax ni makki sàll ci boppam moo gën a xam ni deux mille vingt bii atu révision ordinaire la six mois la war a am de révision moo gën a xam mais njuuj njaaj tappale ak sàcc moo tax mu décidé bépp sénégalais boo xamante ni bii ci mois d'août deux mille vingt deux nga doon am dix huit ans wàññi leen dix huit ans août deux mille vingt deux septembre képp ko am dix huit ans octobre deux mille képp ko am dix huit ans novembre décembre janvier deux mille vingt trois février mars avril deux mille vingt ñëpp ñu am dix huit ans ñu waroon kenn mënul xayma lu toll. moom mu décidé d' autorité nañ ñaar fukki fan ak ñeent la leen may pour ñu inscrire te ngeen xam problème bi ah il faut que ngeen comprendre le véritable problème parce que diggante inscrire pour am carte d' machine bi créé carte d' identité ci téeméer amuñ ci junni temps wu dafa déposé carte d' muy génn nga koy jot ba nga mën a inscrire ji ne yow mii électeur nga 15 jours xaj na ci maanaam diggante ngay inscrire sa carte d' ak ba nga koy jot ba mën a inscrire maanaam période bi sax mën naa tëj. tappale bii la indi tappale bii la indi mais ñun faaw ñu jóg ci parce que liñ leen mayul woon ci élection locale yi fii ci Thiès may ñu leen ko élection législative fii ci Thiès inshaa rabbul izzati duñu leen ko may fii ci élection présidentielle kon nañu taxaw taxaw ci senegal yépp nag ba mu daj man jàpp naa ne sax wax ji ko jar ndax dama yaakaar ne dañuy ñëw lekk tàndarma naan kafe ginaar yi ñëw ñu dóor ko ñaanalante jàmm ñëpp dem moo tax wax ji moom mën na sax bañ guddi bi ci toog mooy li xew kayaar li xew kayaar ñun yeewi askan wi metti nañu li may wax nii dañ ko waxtaane ci suñu biir ah ñun dañoo décidé woon dañ fay dem suba mais bi ñu waxtaanee dañ ne non nañ ko def loo xam ne déplacement wu coalition bi la bu ñu mën a cee boole waa coalition bi yépp nañu jóg mardi ci suba ñu organiser wu ñun ñëpp képp ku disponible nga ñëw ñu dem Kayar seeti nit ñi massawu leen yóbbul leen sunu dëfal bokk ak ñoom naqar lii muy invite boo xam ne ñun waxtaan nañ ci ñu ne ma su ñëwee naa ko jottali maa ngi leen koy jottali mardi daal bu 11h jotee képp ku ko sa jot may nañu joxante rendez ñun ñëpp ñu ànd dem Kayaar seeti suñu mbokk yi massawu leen defal leen ñaanal leen ba noppi am def taxawaay bii war lii dootu amati te lépp lu ci war ci xam li xew na nañ ko taxawe ngir ñu mën koo dindi. ngeen baal ma guddal naa lool ngeen baal ma ñu ngi leen di sant leen gërëm jërëjëf.